nee na xam na ne diine catholique am nañ ci wàllu rëy nee na mi ngi sant yàlla bu baax a baax